eh jugal. Eh, jugal ñu lal fi. yow da nga tàmm désordre la chaque jour. désordre la bu demee nag. di du lal fii defar loo ci lal. lu tax ba duñ ko lal boo ko lalee depuis mën naa kalaate wuti. ah mais boo ko dindee. bu mu ñëwee moom mi kii dara nekk doole doole. waaw loolu lu mu jotee ak lal waaw kon defal nii moom la après ma sànq la ko. mais Alioune Badara lay jaar. waaw tëddal dama la koy sànq ñu xam ne sa température. dégluwul bu baax li ma la wax dégluwul bu baax li ma la wax. Alioune Badara. boo ne mukk sama tànt bul wàcc say bët bul xef bul rëndal say pér ne bukk ci bët mu di la xool nga koy xool nga di ko wax muy comprendre moo raw détecteur privé c'est hyper important nga xam ne position ban ngay toogee ban tànk ngay jiital yooyu yëpp ci dil bi la ba boo ko waxee mu mën a comprendre mën laa déglu maanaam ma triste quoi ak sincérité waaw da may wuyu nag parce que tamit. Alioune dama lay wax pour nga dëgërlu nga xam noonu c'est important li ma lay wax bu dem bi réussir une semaine. une la une semaine. non dafa ñu une semaine de. yow da waxoon ne tey yow la suba man la. déet dama déggoo lekk may lekk. une semaine yi bu jaaree yoon une semaine yëpp damay lekk ngay lekk waaye bu jaarul yoon une semaine yooyu naroon nekk bànneex ci ñun naqar lay mujj. non xam yow diw bii man du ma ko yàq lu ma lewet lawet dinaa ko gérer parce que yow tey yow la suba man la. léegi bu yàqoo fu ma jëm man. ah kon na assuré ko. non dama ko assuré loolu tey kon ci yow la des. baax na kon le vol est yi boo jugee rek may daal. jeex na. maman. xaalis bi nga yóbbu sukkaru koor Sénégal dafa bëri torop torop torop torop maman loolu xaj na feneen. ñaañu wedduma la mais sukkaru koor boo xamante ne ci goro lay def ak njëkke dafa metti j'en suis consciente mais nan laay def. maman su ma ko defee xas ma. maman ay sukkaru koor yi bëri ay mais loolu c'est démodé et ça et ça tend à disparaître maman le monde évolue. ñaañu loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. dara say góor ak say njëkk dara nekk ci. non maman man moom fekkee man nag la man teelal ma kenn maman. ah bon man. ah man de loolu je te le déconseille. ci lii lan la. ci monsieur lan la. ci lan la waay léegi ci la yëg ci. wuy si sàmm ci bi ci bi lan la ci bi jugal jugal jugal toog ci bi jugal jugal jugal ci bi say jugal jugal maman jàppal ci bi say jugal. maman jàppal man yii daf may sonal. jëm la. massa ay waay ji toogal ni dafa naan sama karaw pokkutaan bi am na. xaaral xaaral jibi dëgër loolu rek. ah toogal jibi sëy. Ah, yaa ngi dindi bi. lan la jibi sëy. wa def defee naa defee naa jibi. bul maman. jibi lan moo metti ah. jibi. Euh, oy va ah. dafa xiif tamit nan nga koy mën a xoolee muy woor ak métit bi. non wax naa mu ni ma du du lekk. ba wax kon mm. kaay ñu may la sax nga kii mu ne moom du. dog kooram parce que imaanam mayu ko loolu tamit mm. lu ma ci mën. wuy ma ñaaña jibi baal ma de dogguma de waaw waaw déglu ma waaw maa la ko ñaan maa la ko ñaan c'est pour ta santé maa la ko ñaan ñaaña dama xool ginnaaw bi nga togg ndogg ndax pare na bu fekkee ñor na nga dimbali ma rek may ma ci waaye sama papa téléphone ah, bien sûr bien sûr vas-y fais vite rek jibi xoolal désolé mais il faut nga dog xaama may la ndox nga naan yal na ma yàlla baal lii sax masa ah, lii lu ko fi jar masa jibi hmm. masa ah. yow da nga ko waay yow doo def naa ko dem na bu yàgg bu ma lay yëkkati xam nga ne attunu ma la def nank man dëgërul ñu ni feebar ah la da ngay yëkkati waale sa bopp xanaa doo assistant rek <laughs> mais réussir nañ ko <laughs> xoolal gëm na ko mu ne defe nank ute ko ginaax yow xoolal loo gën a las mais nag yow da nga soof sa tànk yi xoolal da ngay mel ne lu ko dam xam nga njool bu fiy gaañoo fee lay feeñ loo bi ni nga ko def non non def ay eh, dil la nag mu ne moom fu loo deedeeru ñu xeeb yaa ko taamu ah. waaw defal nank rek. tànn gaawal tëyal ma tëyal ma sànni na loos wi yow. aywa tànn man fii dama kii. kii foo ñu yóbbu ko urgence. feebaree bu ma koy waxee. baal ma àq bàyyil bàyyil yow. Mm-hmm. jibi mm-hmm. baal ma àq de mm-hmm. vraiment nag ma baal na ma yàlla baal mi foo nga dog. ah jibi. mon dieu. doguma de. aywa aywa doguma waay. yow ma ma sa. ñaañu mi ngi koy oo. Ah, ah. waxal yàlla ah. latif. waxal yàlla latif. kii kay ginaar gën ci moom yàlla latif parce que du ko tal. Mm. ginaar gi gaaw rek. mais fur wi sax ma joxaale ko tànt. xaar xaar rek xaar. c'est ma dolli la wala c'est bon. tànt géex na mi ngi tane. tëyal ma ko tëyal ma tànt ginaar gi na gaaw rek waxal ñaañu mu gaaw. jibi hmm? encore am masa baal ma de vraiment baal ma ak xaaral rek dafa gëm yàlla bëggut a dog sax je sais gëm yàlla yàlla dalay comprendre dalay comprendre masa dafa mel ni ku yuqool pour gaañu yow dimbali ma yow kii ci état bi mu ne nga wax waxi gaañu musal ma dem. Alioune Badara yàlla ba yàlla musal. nappil ci jël rek fi nekk Alioune Badara yàlla ba yàlla musal salaam. massa massa mu ne ñaaña du gaaw. xam dafa yéen Fatou Fatou déedéet daf leen nag nit du feebar ngeen jël lekk di ko jox ci heure bii. Doudou ki dafa sonn dafa ah, waxoon kay war ah. nañ ko a jox mu ah, lekk. bàyyi jox ko bàyyi li ngeen jox ko abal ma abal ma. aywa tata Fatou. xam nga lu ma du ma tonton Doudou. léegi nag xam nga def jàppale ma ñu ko balaa muy dee sunuy loxo. non non tonton wuy ma tonton defal naa ko yaa ngi délire bi eh, xaar leen. jibi yaa ngi délire sunguf tulu su waaw mën naa ko mën naa ko sunguf tulu li laa ah. xam nga woo kenn woo kenn an kañ tonton yow tonton yaay tonton Doudou. waaw waaw moom. taa Fatou nii. waaw gis Alioune Badara alhamdulilah wér na dootoo demati wér na jarul muy demati. xam naa ne man wér naa. waaye loolu du ko téye dem hôpital de. jàppale ma. ah Alioune Badara bëgguma dem hôpital. Alioune Badara bëgguma dem hôpital Alioune Badara. Eh. da ngay dem bu ne ma yóbbu hôpital. da ngay dem Alioune Badara bu